ko gis di nga ree candidat yi tamit duñ <laughs> ko gisee reetaat nañu et tout na lii lan la mais après dañu comprendre que ni nit la mm-hmm. ku nekk comme ñoom Euh, un être humain kuy def bac comme ñoom dégg nga lu mu wax nee buñ ko ci man bu ma compté ci ñoom da doon def ay révision am di dem ci salle ah, ci ak élèves yi di def ay voilà groupe de travail di def mhm. et tout donc a des choses yoo fi mhm. donc bu ko nit kenn amee courage def ko day jaaxal ñu bare mhm. donc je me dis que ça c'est innovation à faire c'est comme ni nga waxee sànq insolite la mais ku ci nekk ni ngay dundee yow yaa ko xam. donc euh, boo amee ambition bu ne mel def ko man daal en tout cas je lui je lui parce que fii en général am na projet yu bëri yoo xamante boo ko amee. Mm-hmm. nit yi dañ lay ree nit yi dañ naa la muy yéen mag bu jëm bu toll nii yow nga dem ba 70 ans ne da ut bac. Mm-hmm. mais moom xoolul loolu yëpp dafa xool ni lii nii bëgg na ko ci biiwam. Euh, mu def ko parce que tamit a léegi mag laa naa toog naa toog bu yàggee dina métti ci yow en tout cas chapeau ba Fatou. voilà kon yàlla may ay atam su boobaa. amiin waaye ñu xool ci nekk ca fan nga nar a jëm. voilà léegi en tout cas daal comme li ngeen ko wax euh, dañ naan ko mais aussi di ci profité profité waale di wax euh, bonne chance ak képp koo xam ne mhm, tey yaa ngi def bac muy mhm. candidat yëpp ak mhm. ku ñu mën a nekk ci Sénégal ñu ngi leen di wax euh, bonne chance l'équipe de TFM et de tout cœur avec vous. Bijou, il faudra les résultats. la Fati <laughs> c'est il faut ñu dem xool paa bi naka la jëli jee résultat am na d'office wala oral mu demee ñun daal de tout cœur avec lui ñu koy yéene d'office bi <laughs> parce que kii moom euh, dafa mel ni may na courage ñu euh, bëri am nañu ci bëri war nañu mën a xool ci euh, moom ndax jàng du du wees am na ñoo xam def nañ fi ay bac ay quatre fois bàyyi sax ñu découragé alors que matu ko quoi xëcc bu bu daggul rek dikk góobul leen dina mës a xam naa noonu lañ koy defee incha allah bu boobaa ma mm-hmm. àndaat ak mandat <laughs> jël suñu caméra braqué foofu di xaar résultat waaw résultat bëgg naa gis suñ koy noddee ni ko <laughs> xale yi di waxee xam naa ne genre scoop yi tout que atta ci boppam moo tuuti <laughs> mais dafa mën di jënd waa dëgg la machallah atta ñu koy remercier aussi ci ànd bi mu àndoon ak yow mm-hmm. te pa bi man man koy ñaanal daal euh, mention laa bëgg mu am parce que courage am daal dafa ma touché bu baax euh, léegi nag dañuy jàll ci rubrique di ko perso ci jàng la ñuy wax ba léegi euh, tey nag yi dafa am professeur bu bees fii ci plateau yeewu leen mi ngi blow blow yoo xamante ni xoolaat naan tay ma aaya. ma c'est c'est trop bon nekk ci beneen côté bi quoi benn instant amul stress bi ñu waxaat day ñëwaat amul stressé wu ñu laaj ko moo bi. stress boobu la amul. ba tax na yéen ñii laa nar a stressé tey. Mbadou waa loolu ñu nar a jàngal tey mais bon Dico Perso euh, le mot du jour euh, c' euh, inexorable dañuy ànd ak élèves wu dama daan xam nga Asambeen mooy professeur yi ñëpp. dañuy ànd ak élèves wu yi ñu wax ñu moo boobu lu muy tekki te ñëwaat ci plateau bi. Bonjour, je m'appelle Kevin, je élève de 3e C au lycée Galandou Diouf. Aujourd'hui, je vous présenter le mot inexorable qui s'écrit i e a b l e -E. Euh, classe grammaticale. Inexorable est un adjectif qualificatif. Sa définition que l'on peut fléchir par des prières. Exemple dans une phrase. On l'a supplié, mais il reste inexorable. Synonyme. Impitoyable, inflexible. Homonyme, désolé, j'ai pas pu trouver d'homonyme pour ce mot. Antonyme, exorable, flexible. Paronyme aussi, j'ai pas pu trouver. Mais sa dérivation, j'ai trouvé inexorablement. Merci sera tout pour le mot inexorable. Bye à vos Euh, merci à Assoumen Thioub et à ses euh, élèves léegi nag euh, tey ma moomee xaar def nii ma xool. Euh, ñi di fas seen kanam ñi di ñàngal. mais ma def nii plouf ci digg bi plus vite 3 fois 9 27. Euh, salaamaaleykum soxna si borom lu weex li <laughs> Mado Mado nee na du wax de. <laughs> je m'appelle Astou Mbène mënuma dem def rubrique bi ba pare ñëw nga di ma ci poser <laughs> répétition les doon. elle change de nom ci saa si changer personnalité. kenn mënu ci dara de. Mado jox ma phrase s'il te plaît. man la Astou Mbène Thioub donc mënuma dem def reportage <laughs> waa li tamit de kenn ko def na ci plateau les les de Mado. waaw euh, Marie-Christine reste inexorable rek bëgg ko def loo xam. bàyyi jàmm oh mën a génnee nii yow tamit. waaw ah waaye tamit bàyyil Mado mi ngay tam bay Mado waaw. doole <laughs> doole mooy doole. en tout cas merci ak Sibène bi nga xam ne tey blanc la sol ñëw ci plateau bi ci recherche yi nga <laughs> xamante ne defal na defal nañu ko ci euh, rubrique di ko perso comme ni mu koy defee chaque matin ànd ak benn xale jàngal ñu moo bu bees mu doon lu am solo ci biir yeewu leen léegi nag man xaw ma sax nan laa la war a woowee Mado wala Asibène Mado <laughs> ah Mado nga waaw <laughs> d'accord Mado euh, dellu si na Mado léegi dañuy ànd ak yow ci euh, bien mm-hmm. ne ni euh, jigéen ñi fa la ñu mën a yam ci yokk seen taar parce que mm-hmm. tamit ñun euh, dañuy teg greffage dañuy mm-hmm. émaillu dañuy dañuy sol yu dang ak yu serré mm-hmm. <laughs> mais parfois dañuy xaw a sax fàtte religion bi xool li nga xamante ne moo ñu neex rek war rafet léegi lan lañ ñu permettre Mado voilà moo tax taxoon bijou comme tu l'as si bien dit ma demoon seeti leen ki nga xamante ne sunu oustaz bi nekk ci biir kër gi mu yeddu ñu waxtaan ñu waxal ñu exactement quel est le comportement de la femme en période de ramadan ñu dem xool tabaarakallahu jigéen ci weeru koor ak ay maquillage xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa fonk jigéen fonk bi mu fonk jigéen moo tax bëggul lu koy gaañ euh, nit ñi dañu yara di ko woon bu njëkk di fekk jigéen di ko agressé parce que booti bi ak euh, yeneen yi moo leen doon attiré ñu koy agressé sunu borom wax ne ne jigéen mel melokaan bu tax kenn du ko agressé ci mbedd bi kenn du jël alalam kenn du ko siif alors léegi nag loolu yàlla wax ne yudniina alayhinna min jalaabibihinna euh, ci wàllu weeru koor ak defar sa bopp yàlla d'accord na santaane na jigéen mu defar boppam parce que bi yonent bi salaa war a takk soxna te këram xaw a am ay jafe-jafe yàlla daf ko jox ay critères jigéen yu mu war a takk muslimaatin muminaatin qaanitaatin taayibaatin abidaatin sayihaatin yàlla jox ko ay ay jukko yooyu nag ay jukko la du du sañse ay jukko jukko yooyu moom ngay sañse ci biir ba boo solee benn garamb bu wala benn mbël fa sax boo génnee mu jekk alors léegi nag mu am lu xew ci jamono muy maquillage loolu xew ci jamono di maquillage li ñuy jël def ko ci sa kanam eh, ak yi ngay def sa xef yi ngay def sa bët yi ngay def ci sa kanam yooyu yëpp l'islam dina jàpp ne jigéen war na koo def mais na ko def ci biir néegam moom ak boroom këram wala yub diina na la yàlla wax sa beauté yëpp bul ko génnee génnee ko ci mbedd mi mais sa boroom kër nga ko war a wan kon maquillage bi jigéen na ko def mais ci biir këram mook boroom këram léegi mu am beneen lu xew mooy pose yi euh, jullit dafa war di jàpp dafa war di sangu léegi boo posé bu sa njàpp tojee am nga problème parce que foog nga dindiwaat pause bi pour jàppaat sinon jàpp bi baaxul te bu jàpp bi baaxul julli bi du baax